asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo am yéene àndaat ak yéen ci talaatay maam Cheikh Ibra bi jële nañ ci Baay Njaga Jóob Baay Faal mu wax ni maam Cheikh Ibra wax na ni limeen di jamono mooy wane sëriñ Tuuba ba ko ñépp umpalee taxawu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke al Karim ba taxawu jafe jur Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu àggali sama liggéey kum fi wàcc mu àggali liggéeyam doom kum fi wàcc mu àggali liggéeyam doom jërëjëfe Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibra